salaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki diaspora sénégalaise bi nekk ci àdduna bi ñu ngi leen di nuyu di leen di yaar di leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp kii wax ak yéen di seen mbokk ngeen xam ko saa muy dëkk ci yéen di def ay ndéggate ki xalaat ak ay pexe yu ñuy teg ngir mën a am li ñu bëgg ci réew mi di Akhenaton di leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp euh, réew mi nak coow li bari na ñun ñëpp ngi xaar bis bi ñu war a jàpp pour dem ci jogante yi gannaaw bañ ko tuxalee te teguñu ko fenn muy waa conseil tey gis nañ Macky Sall dafa mel ne dafa teggi tànkam ci yu bari yu mu doon def ci njuuj njaaj ak jaaxle gi tappale xañ Ousmane Sonko mu bokk tas parti Pastef jàpp ay nitam tëj mu mel loolu dañoo fëgg bopp bi mu di ci dellu bàyyi di libéré ay nit yoo xam ne dañ leen kidnappé woon dugal leen ci kaso yu tëj leen fa àttewuñ leen tappale ci ay yu kenn xamul mu nekk loo xam ne euh, ñu bari gis nañ ko ci depuis alxamis ñi ñaa ngi commencé génn benn par benn donte yeex na ñu bëggoon mu gën ko gaawal gën ko baral ba ñëpp mën a génn ñ seen ausman Ousmane Sonko topp ci Bassirou Diomaye ñoom ñëpp ñu génn parce que ñu dara ci kaso yi euh, mu mel ne eh, ni ma leen ko waxee woon Macky Sall fasul yéenee organiser ay élection fii ak le 2 avril loolu moom wax naa ko waxati ko li ma gis ak xam ko loolu lépp loolu lay wane waaye euh, lu jiitu loolu ñun ni nga xam ne dañoo bëgg Ousmane Sonko ànd ak moom du ko jàppale boobu ba léegi jàpp ne war naa mën a yor réew mi boobu ba léegi ñu du ci xeex Macky Sall tooñ ko jaay ko doole xañ ko mu bokk ci ay élection tëj ko ci kaso bi ak i ñoñam ñun suñu yitte jamono bii may wax ak yenn mooy Macky Sall su fekkee jàmm la bëgg ci réew mi su fekkente ne bëggul ay ay su fekkente ne dafa bëgg comme ni mu koy waxee wala bokk ay ñooñam di ko wax naan dañoo bëgg réew mi daal dañoo bëgg ñu waxtaan dañoo bëgg waxtaan waxtaan waxtaan fam loo xam ne Macky Sall mënoo koo am ci Ousmane Sonko mënoo ko am ci ñi ànd ak Ousmane Sonko ndax nit bala mun a naam ne fa waxtaan bi nga bëgg Macky Sall yàgg nga ko def def nga ko ku ne taxul nga am li nga bëgg Macky Sall waxtaan yu ngay bëgg waxtaanu lu mu doon ak lan nga bëgg bay waxtaan lu tax nga bëgg a toog ak nga xam ne ñooy njabootu Ousmane Sonko Ousmane Sonko waxtaan ak ñoom lan nga bëgg a waxtaan ak ñun Macky Sall loolu mooy laaj bi ma lay laaj te Macky Sall ñun naka la ñuy waxtaan ak yow ne nit bala mu ne naam ne fa Sall tas nga Pastef Macky Sall tëj nga président wu Pastef Ousmane Sonko Macky Sall tëj nga secrétaire généralu Pastef Bassirou Diomaye Faye Macky Sall tëj nga ay junni militant wu Ousmane Sonko ci kaso bi waa Macky Sall boo bëggee wax ak waa Pastef yow naka nga tëjee nit tëj njabootam tas partem toj ko ba noppi da ngaa bëgg a wax moom waxtaan ak moom naka nga bëgg a waxtaan ak Ousmane Sonko Ousmane mënut a wax ak yow Macky Sall parce que Ousmane a wax que njabootu Ousmane Sonko yi ramasse nañ tëj ci kaso te defuñu dara Ousmane mënut a wax ak yow Macky Sall parce que dangaa jël parti Ousmane Sonko nga tas ko ci jaay doole Macky Sall doole jooju nga doon utiliser ba mu indi la fii tey xeex Ousmane Sonko ba dal ci kaw Amadou Ba sa candidat bi nga xam ne Ousmane Sonko ko gën ci yow Ousmane Sonko moo gën ci yow Macky Sall Amadou Julde Ba bi nga bëgg a def candidat te xam nga bu baax li ma lay wax léegi nag jóg nga pour xeex Amadou Julde Ba Ousmane Sonko nga doon xeex Amadou Julde Ba jàppale la ci pour ñu rendi Ousmane Sonko ba nga tër Ousmane Sonko waaye sa loxo nàcc yow Macky Sall te nàcc gi mu nàcc mooy Amadou Julde Ba dafa dara këf sa nguur gi ci ay tappale ndax mënut a ci ay tappale ay préfet gouverneur ak i nit yu mu teg fépp ngir mën a sàcc élection yi këf ko jàppale yow Macky Sall ak Marème ak sa njaboot tëj leen ci kaso yi seen ngir dund fala la Amadou Ba jëm loolu moom lu mu pare la bu Amadou Ba bu sàccee nguur gi ba falu mënut a falu da koy sàcc ci tappale da koy sàcc teg na ay nit fépp préfet sous préfet SEDA Sénat commission nationale de recensement des votes juge teg na ay nitam fépp pour sàcc élection yi moo tax mu ne dañuy dem élection moom Amadou bi ngeen di dee loolu moo tax ngeen wëlbatiku ne Ousmane mañ doon xeexal njabootam nañ jéem a xool lu ñuy waxtaan ñoom Ousmane nu muy wax ak yéen ngi ci kaso bi Bassirou ngi ci kaso bi njaboot gépp a ngi ci kaso bi commencé ngeen bàyyi na gaaw te bar benn ñaareel bi ngeen delloo Ousmane ay àqam ak yelleefam ci tooñ yi ngeen ko tooñ ci ay tappale ay atte Mame xamul ngeen atte ko par le bi nga xam ne dugal nañ rabat d'arrêt bi ngeen atte rabat d'arrêt bi casser man ngeen am ngeen ay possibilité pour def ko leen mas a neex def ngeen ko ci réew mi bu ngeen jaarul par rabat d'arrêt ngeen modifier l'article L57 du code électoral Ousmane Sonko ngeen delloo ko ay àqam mooy ñaareelu condition bi ñetteelu condition bi Macky Sall fi nga toog nga jël décret buy delloo si parti Pastef du dara ci yow ñett yii boo ko defee muy ay acte yooyu teg yoo xam ne daañu ne Macky nii kat am na lu mu bëgg bëgg na jàmm bëgg na toog ak Ousmane Sonko wala njabootu Ousmane Sonko waxtaan ak ñoom su boobaa ñuy soog a ne ah nañu toog xoolaat comme Macky def na lii ak lii ak lii nañu waxtaan ci suñu biir xool ndax mën nañoo toog ak moom wóolu nañ ko wala wuñ ko parce que Macky kenn da laa wóoluwul fi mu toll nii te nag nit ñi ñoo yey bañ laa wóolu. parce que da ngaa njuuj njuut njaaj goo xam ne kenn wóolatu la léegi nag soxla nga ñu ñun Ousmane nag ñun ñi ànd ak moom soxla nga ñu loo ñu doyee xamuñu ko loo bëgg ci ñun xamaguñ ko lu tax nga soxla ñu xamuñu ko waaye xam nañ ne tiit nga jaaxle nga ndax Amadou Diouldé Ba mi nga jiital ba noppi bëggoo damm ko bëgg koo damm ndax bu faloo nga dee xëy na loolu moo tax nga soxla ñu wóoruma nag damay laaj xëy na loolu moo tax waaye ñun boo ñu soxlaa defal ñu lii ñu lay wax mooy delloo si Ousmane Sonko ay àqam ak yellefam aate tappale yëpp ngeen seppi ko sànni ci àll ba delloo sil ko parteem génne ko ci kaso bi moom ak jomaay candidat am ak militant yi nekk ci kaso yi ñëpp génn muy acte yoo xam ne day leer nañ àdduna bi yëpp teg seen ba su boobaa nag ñuy soog a xool naka la ñuy toog ak yow wax ba ñu ñëw wax ba ñu ñëw dialogue dialogue bu sincère la ñu bëgg nit ku sincère la ñu bëgg a waxal ndax ñun ay gor la ñu am kaddu lépp lu ñuy wax dañ koy sàmmante moo tax bëggu ñëw toog ak kuy tappale koo xam ne wax li tey suba mu wax lee dañoo am honneur am dignité seq dëgg ak ngor bu ñuy sàmmante ak ñoom depuis fukki atu yàlla moo tax ñu topp ñu loolu sénégalais yi dañ koo fonk kon Macky Sall boo bëggee toog ak ñoo xam ne dañoo fonk seeni askan am kaddu da ngay fexe ba defar sa kaddu defar sa toogaat teg ay mbir ci ko taabal ji loo xam ne mën nañ ne Macky Sall ma woon soppeeku na tey da ngaa am intérêt yow Macky Sall pour defaraat sa toogaay da ngaa am intérêt yow Macky Sall pour nga mën a fexe ba ñun ñu wóolu la. ci ay mbir yooyu ay jëf yooyu teg loolu nag maa ngi la ciy woo yow Macky Sall kii wax ak yow nag di Akhenaton ma bëgg audio bi ngeen partagé ko ba mu àgg ci nopp Macky Sall dama koy laaj biir parce que jamono yi sonn na lool lool lool lool lool te ko bokk nag ak lu fi mënti xew woon ko mën a pénjoo toog waxtaane ko ci njekk ak teranga ak ki dëgg pas tappale ki dëgg ak njub ak sàmm sa kàddu ma bëgg ngeen partagé ko mu yaatu kii wax ak yéen di seen mbokk Akhenaton asalaamaaleykum maa ngi déglu Macky Sall nag